asalaamaaleykum ami internetu Saint Louis TV man la la sista tuuti maa ñëwaat présenté waat leen seen émission kaay wane ma deuxième numéro émission kaay wane ma laa leen di indal kan la ñuy seeti ji nag ci seen émission kaay wane ma la charmante Fat Fall la ñuy seeti ji ñu gën ko xam ci Fastis Beauté moom la ñuy seeti ji bu ne saa nag dinañu dugg xool xale bi lan la ñu fas yéene présenté ci seen émission kay wane ma présenté woon ci suñu dugg bi yaakaar naa ni bañ leen ko présenté dugg nañu seeti ji la charmante Fatou Fall ba mu ñu wonee li nga xamante ni moom la sañseel xale yi ñëpp gis nañ ko te macha allah xale boobu nag la ñuy fas yéene seeti ji Fatou ñu ngi lay nuyu ñun waa Saint-Louis TV. leen di nuyu di leen ziar di nuyu sama xarit yi toog fi yëpp di sant sama yaay sama papa. di sama wakil sama tonton ya di sant ñëpp di gërëm ñëpp macha allah. mais Fatou dañu bëggoon xam lan waral Fatis beauté ah lan mau ko waral. waaw tuti Fatis beauté sama si laajee damay sawax di la ci tontu parce que mënoon naa wax Fatis couture mais Fatis beauty boo fi ñëwee ñoom dañ lay en plus dañ lay coiffer bo bëggee aussi dañ lay make up donc su ma waxee couture kese dafay affaire bi dafa am fu te en plus Fatis bi dafa yaatu dañ lay solal dama lay ñawal make la photo la donc il faut mo Fatis Beauty mhm. mu jël euh, beauté yépp mom la englobé macha allah. kon lolu leer na xam nga ni Fatou bu ñu nee ñaw ni création dañ lay laaj li nga xamanteni mom nga ñu présenter ñun wa Saint-Louis TV ci sa loxo la jaar wala dafa am ki nga xamanteni mo nekk ci sa euh deug na touté xam nga bu ñu waxee feccu bu neexee yaay ja moo tey ci mbagg ya li yëpp bu amee tey sama yaay moo ko waral naa si saw saw la àdda borom nag ak meew yi nekkul jéeg joo xamante ni dafa judd rek yaa caaral dama judd fekk machine man bi may ñëw di xam ñëw di judd di xàmmee machine yi ñuy wëndee ci loxo moo am sama yaay day toog di ñaw may doo wëndal ba ngoon jot kon lii su ma ko defee warul bett kenn ah, am don aussi bu ñëw di nelaw ci man xam nga parfois nit dara dina nekk ci yow nga yéex koo xam ma koy fowee lu bari sama yaay mosul nangu parce que ku nekk li nga bëgg jaar euh, bari na fi doo bëgg sa doom jaar fi su ma fekkee ma ñaw sax day mer di saaga di wax mais léegi dem na ba xam ne lii don la buy nalaw ci man boo xamante ni moom mënatu ci dara man aussi mënatuma ci dara euh, euh, ñi ma ñawal ñëpp macha allah maa ko dagg maa ko ñaw yaa loolu la yàlla dogal waaw lu ñuy naan doom ji jigéen jàngaanewul nday gaay royukaayam te faatu nag fi mu jàngaan yi ñëpp xam nañ ko ndax nee nañu doom ndayam da caa foor te bu koy nàmpal da koy xool mais faatu top modèle yi nga xamante ni moom nga ñu présenté tey bu ñu bëggoon am li nga xamante ni moom nga ñu présenté nan la ñuy def sa numéro téléphone sama numéro benn numéro kese laa am mooy 78 141 35 90 mais est-ce que da ngay def livraison à domicile bien sûr damay livrer à domicile def euh, sur commande mhm. am na tamit prêt à porter boo amee tey sa cérémonie tey mhm. boo woowee Fatis Beauty bu la neexee ñu solal la tey macha allah. kon yéen a ko déggandoo Fatou ngi noonu présenté nañu boppam wax nañu fu mu jaar buñ fa jógee nag dañuy seeti ji ndaan naan kulli fadiri ndax damay naan ko koy doomu nday alaaji kan bu na maa lay nuyu di la ziar sama doomu yaay. far yoo leet ñaalu guyit naa ko daan jël. am ri ngoon yëri mbaay dinaa li may sëppendu joore tuuti joob sama jigéen bee waaw asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum ndar géej eey tuuti juube sama jigéen baa gi nuyu naa la asalaamaaleykum asalaamaaleykum tuuti maa ngi lay siyaar di la bégee di la jox sa wàccuwaay yow moom yàlla dafa dogal ni bi ma faatu woowee mu nekk sunu jigéen nekk uh, xale bu gëm li muy def man bi ma ko fekkee fii dama kontaan lool ndax moom bu ma gisee nit ku jigéen ju bëgg boppam di dóor waar wax dëgg yàlla damay am ferte ci ñëw fekk si la yàlla dogal nag sama ñëw fii mu jaare ci xaritam muy ndey Mati di sama jigéen kiy sonn ci man yàlla dogal fu ma tëgg soirée fekk na ma fa di ma consommer di may teral te nit nit ay garabam te man awma lu dul samay soppe ak samay xarit moo waral sama teewaay fii ñëw ànd seeg fekk la fi nag yow ak waa Saint-Louis TV Saint-Louis TV ñuy def yu mucc ayib dama leen di gis bu baax a baax ci YouTube bi di leen suivre yàlla na seen jàmm yàgg yàlla yokk kàttan beeg mën-mën bi kon bu na dañuy fas yéene super mberaay def ko yëfu ndaanaan ndaxte tey dañoo fekk si ndaanaan te dañoo fa yéene def ala daw mi ko ba mu neex acca ñu dem doom yaay booy yela way sa yaay nee daal yaay borom bis bi ka moom bis daal yaay borom ay waay wóolu naa la xale bi yaa moom way wee wayal badoola sa yaay ala badoolo kuma tàcc doo yëri loxo basar xool ne doote kumba tàcc du yori loxo nari guri takk nanu leen ku ñeme gawar yaay ku ñemewul te nga tooge bu tukki yàgge léegi gawar fee non fatu jigéen ju mën góor la ki ya sagal yaayam ki ya sagal baayam ki ya sagal baayam doomu ndey ndey katiwul naa la ndey ma tengoo doomu ndey faatu xale yaa ngi ne ko xale yaa ngi wulu naa leen woyut naa leen far yoo ñaalo gëy naa ko daan jël dun ko wayal cuune dun ko wayal baa ndey mati doomi ndey Fatou liggéeyu ndey añub doom teel a xëy dunde guddee wàcc ngay dunde ma de wulut naa la ma de wulut naa la ma de woyit naa la ku ci bëgg sëriñ Babacar Si Malik, sa ñaari loxo ca kaw may seen fatu wayit naa la bis bi yaaka moomo ma sama mam di daan liggéey di tedd di dimbali képp ku mu mën a dimbali tànk yooyu laa bëgg jaar saara gi lem limay met ak limay joy moy li nga nekkul ba ma mënul jël sama alal teral la defal la comme li ñi defal maam yu baax yëpp waaye fa nga nekk ci àjjana xam naa ni sa xol sedd na guyu ndax lépp la ma doon wax rek mooy faatu góorlu gëmal sa bopp nangul liggéey bul wéeru ci benn góor man tànk yooyu laa jël teg fa samay tànk macha allah di gërëm sama tonton yi ma dëkkal man namu ma dara princesse sax lañ may woowee parce que namu ma dara dara namu ma ko téléphone bu cher mi sama kaw cheveux bu cher mi ngi sama kaw jesner ba mu koy sol benn mag sol ko macha allah jooyu ma dara dara dara dara namu ma dara macha allah di gërëm sama jabaru nijaay yii ma bokkal kër nga xamante ni ñii ñii ñii aw ma seen fay ñii sëy kase leen tax a jóg xadi mii ak ndaykan ñii sëy kase kase kase kase moo leen tax a jóg ñii seet si wuñu dañoo sëy si ñun suñu taggee tusi ña nga ca omb ba kee ma nga ca perle ba kee ma nga ca code renfort ba su la neexoo ñu ni seen waañ lañu res dañuy togg seen añ ak seen reer dem tëddi nelaw parce que loolu moo fi am defuñu loolu korite ba ñu umee baraxlu korite ba tey jii kenn xamu sa lal nu mu mel lal nañ ko ba mu baax waaye duñ ci tëdd seen doom yi di jooy duñ leen tal ñu amee leen àq bu baax a baax a baax a baax ñu ngi leen maa leen di baalu àq bu baax muy ndeykaan ak xadi kër gii na ak man benn yoon ñii ñu baax lañ di gërëm sama rakk ji kii sama cousine la yaayam ak sama yaayu ñoo bokk ndey ak baay may kii kayam ki jangani wul fenn wuti jiwul xarit fenn sama pooj yi la yam ki lu ma ko lu sol ko ki lu ma ko defalul kanam kanamam neeku ci lu ma ko defalul ci bopam neeku ci daf ma doylo di titero daf def ma mak ba pare wóolu ma doyloo ma di gëran sama xarit bi juba juba ki dafa riche ki dafa riche bi duwaale ki lu tax ma ci xalé yi namul la bok ki day teel xey di wacc su jógee seen kër fii lay ñëw di ma wétali may toog di ñëw mu may wétali yow lu ma la defalu dama ko amul naa la saajal ngay fëlaale di sànneeku di jekk di jongama te kenn du ci man dara ndax man faa dama mën sama nit say mati jigéen ju mën góore su ko fi ki marché muy duri waat nday mati man dama bëgg jigéen ju am jom lool nangoo liggéeyi jamonoy tey ji mbokk yi da lay seetaan bay laaj sa coono nga wër di tumuraake foo mën a ne gëmal sa doole ndax àdduna boo ci nekkee del ñàkk jëriñu boo nekkee jigéen lu ne di ko dégg lu ne di ko gis waaye boo gëmee li nga doon jël sa jukka yaay foo dem mën fa am teraanga nday mati xam nga ni maa lay woo ne ko mati maa lay woo am nga jom te nangu liggéey nday mate ngoo ne ko mati maa lay woo xam nga maa woo am nga jom te nangu liggéey daal sa yaaya liggéey li maa woo nday mati maa woo d' accord waaw macha allah rafet na neex na. bu ma jógee ci loolu may tëjee ak sama yaay yor sama yaay yi di ko jiital sama yaay naa si saw wax naa ko kooku mu ma def li ma doon def ma princesse na mu ma dara macha allah yére bu rafet jésneer man la koy jox tabaski gir moom du teg cheveux cheveux bu mu jën maa koy jël teg ko. ba mu ràpp sama bopp macha allah sa pula yal na sa jàmm yàgg balaay dëwoon yal naa la yóbbu màkk indi la fii biir màkk ci sa saal bi toog di la fi teeru incha allahu rabbi mën yàlla mën na ko te mi ngi ci sama xol te mooy sama bébét lépp lu ma yéene woon seen bu saar si sa kaw laa koy xëpp maa ngi ñëw ci sa kaw di gërëm sama yaay umu saw kooku du sama tante sama yaay la à bas âge la ma commencé sañ seel kooku mooy jaay tissu di ma jox may sol man d ma jënd tissu daf may sañ ba mu ma kontaan xew bu ma dem dañ may joxañ te juru ma tusi jëndaanu ma tusi nii lay defanteeg man ba mu rafet dama ko jox kooku may taawam bu jigéen la may wax di gërëm tata astu tata astu mbenn sama caatu maam bu jigéen boobu nga xamante ni dafa naa ma yaay sama xarit sama doomu nday man sama ay yaay ñooy sama xarit jëgaani ma dara sama waa kër ñooy sama ay xarit sama waa kër ñooy sama ay idole macha allah maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm Alima Seck tey cat moo ko dugg kon heure bii bu sàjjee fii fii dina wàcc ba zéro waaye lu yàlla dogal mënu ci dara ak yaayam tata biir ko kooku dafa ma bëgg xew bu mu dem xale yëpp bu ñëwee da leen di seppi seppi man a weñ man kese lay way su ma ko joxee ak su ma ko joxul kooku man la bëgg kooku man la bëgg wax ko fépp ba ñëpp dégg ko man daal ma togi fii di lim ñu ma war a gërëm billaahi fi laay fanaan maa ngi gërëm ñëpp di gërëm sama nijaay Pape Saw sama officier sama VIP kooku nga xamante ni moo tax chaque fin du mois may rang ci carte gab yi sama carte gab laa yor sama bir pochette boo sama yaay indek bahas, su ko neexoon sama ay bahas sama dom lah koy jox man damay rang ci gab yi di récupérer barki dem moo ci mujj dima fayal ay million école nag ay million la may fay kooku su ma daree di jàng ba tey moom moo tax parce que damay dem ba ñëw bi ëpp ma e rek bëgg di xalaat pap saw rek damay jugaat jël sama ay kaye takkaat samay di dem jàngi kok tang indi lu ma salaire ma dem fa ko salaire ñëw jox ko su ma tëddee ma saw pulo yàlla sa jàmm yàgg ak rakk Modou saw ak caat par saw chéri Khady loolu dara fay ko waaw. waaw li Fatou wax euh, macha allah neex na ndax nee naa la kay ma nii rek lañ koy wanewee waaye tey kay wone ma bii dafa ala daw mi nag bu na dañuy naan peccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca mbagg ma te nag lépp lu ma fi def mu neex wala mu leer. kenn du sama caméraman bu ñaawul bii di ma Mandiaye bu na dama bëgg nga bàkkal ma sama càmmiñ bi ndax damay ñëw toog nekk tournage lu ma def neex na ko lu ma wax mu ma tuuti noonu la te liggéey balaa neex xol yi booloo te kenn du moom sama càmmiñ ji fii ku fi def lu baax nu waxal la ko ay xale bi waaw waaw yaa fi def lu baax dañu koy wax. fii ku fi def lu baax dañu koy wax. tuuti Diop yaa fi baax dañu koy wax nan ko. fii ku fi def leneen ñu waxal la ko. ay waay tuuti Diop sama jigéen la. xale bi xew si jamono ndeysaan. ne tuuti Diop bëgg naa way naa way naa about my Conseil dernièrement dernier lan la. wa touti ngi bu baax recevoir bu recevoir fi Ma ngi de bu baax amna fierté bu baax ci yow. trop. la wax ni am de déception ci émission bi. parce que euh, nima ko dafa kawé sama ndox na ci yow. bi dem ba télé bo koy partout dans le monde. kontaan naa ci yéen torop di sant sa caméraman sonn na torop di gërëm bu na ñëw na neexal bés ba mu neex a travers sama copine bu ñaaw bi nga xamante ni moom moom lay tiitaroo rus ma ko wax fenn waaw kay foofa toj ma gërëmat sama waa kër parce que man ñoom laa am duma doyal ci ñoom maa ngi leen di gërëm di leen sant ñaari madame saw yi nga xamante ni lu ma laal ñu taq ci fu ma oo ñu naan fay doom di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm sama sama sama sama seex sama doom ndey ma nga ca ma madame Kanté nday astu kooku tey bu nekkoon fii dina wàcce fii ci suba ba tey mi ngi woote amul benn yoon jàmm yow yal na la jàmm sanaa madame Kanté fi ngay sëy yàlla ba fa am benn déception yow monsieur Kanté kooku dafa may solal daal di ma solal saak ndeysaan ah, te loolu sa xarit boo ñëwee tuuti doo ko defal loolu kooku maa ngi koy gërëm di ko sant dafa ma daan wax yow li nga mos a toog bañ lay dégg ci télé mi ngi may dégg boobu parce que bu ñuy foo rek kenn du nangu sa doom mhm. ñawal ko ku dul si man danaa ñawale ma sama doom bi ñawale sama doom mun ma yow est-ce que xam am don di nga mës a toog mode tabaski boobu Boubacar Diallo mooy def mode tabaski te man yaay sama mode tabaski kon madame Kanté sa ñaan nangu na ah, yàlla nañ dem ba lii nekk entreprise bu mag ma ciy dimbal doomu aadama yi di ci teral xale yi ñu ci teralaat seen ay waajur te loolu yàlla mën na ko te dina ko def sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp kontaan naa tam jaajëfal nañ ko suñu doomu yaay ju baax ji di Fat Fall nee naa ko ci xale création xale buzz xale feeling xale charmante macha allah laf cat sama cat ak catu moroom sama beneen moroom jaajëfal nañ leen yéen it nga xamante ne yéen ñu doon teewlu ci suñu seen Saint Louis TV allah ci si beneen numéro émission kaay wane ma jaajëfal naa leen jëfal sama caméraman bisu bisu.